barkeelal suñuy kàddu barkeelal na si jataay bi barkeelal nu li nga xam ne moom lu mu dëgmal law ko nag ci réew mi yàlla barkeel réew mi barkeel àddina bi yëpp yàlla def fi jàmm di indi nuyoo xalifa bi ndax tey moom njaboot gi moom moom xew bi maamam moo woote ci tuyoon ni kenn la muy yàlla yàlla muy borom kàntan nag moo leen mébét yii ñu fi am yëpp yàlla na si yàlla def ndimbalam ba lépp raw sax lu wees sunu njort yàlla nag dafa am loo xam ne ci xadiisul xudsi daf ko wax moo tax gërëm leen war na euh, euh, abdi lam taskur nii maa lam taskur man ak rëytu ni wala taala yëddi hmm. waaw gërëm yàllaa ko moom alhamdu cant lillaahi na yàlla hmm. waaye mu ne nag bala nga maa sant man santal ki nga xam ne moo la jàppale hmm. ba xéewal yooyu jaar ci loxoom ba li nga bëgg mu am cant ginnaaw bi nu gërëmee suñu xalifa ñaanal ci yàlla guddal fanam loolu la ñuy ñaanal président parce que réew mii li maamu oote tey yàlla tuddoon na ne su ñu wax Macky Sall ma ci jiite te bu ñu gisee ba cent quarante troisième bi moom lay fekk mu nekk ci nguur gi kon loolu cër la ba ko yàlla defal ak ñi ko jiitu ñëpp ndax fayal fii la bàyyi lay ootee muy Sénégal gi kon cër boobu itam innal fadla bi yadillahi yu'tiihi man yashaa'u wa lahu dhul capitaine bato nag booy ñaan ñaanal ko jàmm rek ndax ñun ñëpp ñu am jàmm waaw yow mi nga xam ne yaa fi nekkal itam nu ngi sant yàlla ndax noo fi séqoon daal yàlla may nu nu fekkaa karen amen nañ sant yàlla yàlla dane euh, la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma sant ma dolli leen kon suñu cant gi yàlla na yàlla nangu dolli gi ñu si sàkk mooy fekk ay at yu bari te mu ànd ak ndam li nu gën a ñor nag mooy li borom oote bi wax muy jam hmm. ba fa mu tudd mu tudd ko jàmmalaay hmm. jàmmalaay uh, bu leen nit dabee dog seen kuru dem bu bañee ni du for feria ya. bàyyi len ka kurus bi uti beneen kurus jam nga kooku jàmm rek la bëgg waaw jàmm nag ci la lépp xaj ñu ngi koy ñaan yàlla bi nu jullee sànq nu ngi koy ñaanal réew mi yàlla na ko yàlla defal di gërëm service ko ci rek yeneen bi daan wax ne ci wàccuwaay ak démb mu ne wërsëg ñett yi rek nga ci am li nga lekk mu reer li nga sol mu raat ak li nga dawal ci sa bàmmeel kon occasion yu mel nii lu ci waaye def bokk na ci li nga dawal sa bàmmeel kon yal na yàlla fay leen ci kenn ku ne sama maam namul fay du la liggéey la waaw ñu ne waaw mu ne ndax fay ak yàlla moo gën gu nit waaw ndax ku yàlla fay nga kex ñun li nga liggéey juste moom lan lay <coughs> waaye yàlla dafay ful ba fukk fay la ka nee na moom boobaa ngay kastaw ndax da nga naa ah, benn rek laa liggéeyal yàlla ma koy fukk kon yéen ñi si jàpp ñëpp yàlla na yàlla defal leen ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di gërëm nag jotal gërëmal xalifa bi ñoom ñii nga xam ne wax dëgg yàlla ñun ñu ngi toog suñuy kër yendalu ñu fanaana fanaanalu def liggéey bii ba tey ñu mën a toog fii di tënk sunu fol xolu xolu fi di sedd na ci ñoom yal na yàlla fayal lu leen yal na sama borom may leen ay xéewal ñu appel ak jàmm dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ak ci alhamdulilahi rabbil alamin monsieur li nga def nii tey dafa dafa dafa touché waaw ñu arrêté liggéey bi parce que yàlla moo soxla nga ne nen dem julli ji ñëwaat loolu lu yéeme la waaw yàgg naa ñëw réunion nationale yi waaye nag vraiment tey jii moom def nga loo xam ne yàlla ngi ne ci jom ñun bu yëg bu ñu bu ñu ko yëgul ñun nit yi diine. Mm. kon xaw ma lu lan lan. Mm. Hmm? kon xaw lan lan mm. waaw parce que nit nit mooy rëcc mooy am lu ko rëcc mu naan ay nan laa koy dal mais yàlla dara mënu ko tey temps boobu ñu def julli ko lu ñu fi mën a rëcc rek yàlla si boppam mën na ko indi boole kaat lu ëpp luñ ci yaakaaroon ndax ayuba ba yàlla jeexal ay nattoon dëkk delluwaat la mu amoon ba pare dolluwaat. kon lii nga def nii bëgg naa ñëpp jàng si sunu waxtu yàlla lu fekke rek loolu ñu jàppoon ñu bàyyi ko julli bu nu paree eggali te xam ne bu nu fi yàlla bàyyee ba nu fekkee ko sax bu ko fekkee yàlla la neex mm-hmm. bu ko fekkee mën na noonu liggéey ba liggéey bi rafet ba bés ba ñu wuute waaw te xam ne moo yor suñu bakkan moo nu fi mën a bàyyi ba nu fekkee ko te itam bu la xam ne moom la ñu tëral lépp yàllaa cay mën a ànd mu sotti kooku moom ba laa lu nu jàpp dañu koy bàyyi suñu paree delluwaat ci suñu yittey loolu mbir moo xam ne ren ji ah lu day rëy na suñu yàgg naa fee ñëw naa yàgg nañ fee ànd <laughs> waaw muy lu am solo lañ ñaanal yàlla ah jàmm ji réew mi nga xam ne moom la secret bi réew mi xam ne mu yàlla ah, yooyu ñuy def def la ko faral rek sama borom fay ko su nekk ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall waaye tamit ci coordination au premier ministre Amadou Ba ngir Dajé ak yéen wadjal 143e édition bu de Seydina l'imam Lay di sante comité d'organisation bi ci Seydina di sant bu baax tamit ki nga xamante ni moo fi teewal xalif général de Layènes muy Seydina Mouhamadou Makhtar Laye di suñu wëlëre Seydina Chérif Mouhamadou Lamine lay di rafetluwaat kàddu yi nga xamante ni jip na fii ñu jëmale ko ci yeete ngir lu ñeewal Sénégal askanu Sénégal waaye ñeel tamit àdduna bi yépp te daje yu mel nii laata sax ñu yegg ci bisu appel bi dafay doon daanaka farata ngir ñu waxtaane ci loo xamante ni buñ fi bawoo dañ ci mën a jariñoo ba déwén ak jàmm loolu nag yàlla dogal na saa yuñ ñu fi dajee gis nañ ni saa yu kaddu jugee ay kaddu fàttali lay doon waaye ay kaddu ñaan tamit lay doon gi day doon lu am solo ngir li muy mën a euh, indi ci njariñ adamai, ko ci doomu dinala yi mooy ku ne àdduna dina la jàpp jëmale ci wàllu liggéey wala jëmale ci yitte mais ba di mu ànd ak dal am ay rappel yo xamante ni rappel yo yóbbal lay doon pour lii dox suñu diggante ñuy kon dañuy rafetlu bu baax li jëm ci wàllu rappel yooyu di rafetlu tamit li nga xamante ni moo aju ci ñaan yi di ñaan suñu borom mu nangul ñu lépp ci wàllu engagement wu état bi ni ma ko waxee si sama njëlbeen wax son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ku ne xam digam ak kër gi ku ne xam digam ak ku ci nek tamit ci kër gi yaakaar naa daaw fa andé di lu Seydina ci lu jitu sax muy ci fi Seydina gis taxawaay bi nga xamante ni jëmale na ko ci këru diine yi këru diine yépp waaye jëmale ko seq ko ak njabootu euh, Seydina Limaamu gépp Chérif Mamadou Lamine wax ay wax yu am solo tamit di wax ay waxu di doon waxu fàttali di doon wax joo xamante ni jàngale yu bari tamit am na ci waaye naka jekk dama koy tooñ léeg-léeg bu ñuy waxtaan ndax suma xarit la suma wëlër la bonsoir mon frère la dañuy faral euh, échanger ci ay euh, question mais ça su nek koy wax plaisir parce que nit li muy ay wax mooy bu fa nan la ciy mën a jariñoo su ni déglu nga ko di nga subtilité ak li finesse ci kon

wax ci diggante nit ñi ak suñu borom bi nga koy wax am lu ma lu dem sama xel sa waajur bu baax bu nekkoon Touba euh, di sëriñ Saliou daan ko wax li nga wax nii yàlla dangay ngay jug fekki ko dafa am nu mu ko waxee woon waxin wu yéeme waxin woo xamante ni euh, dafa lamboo solo su bari ci dëxëñ dafa waxoon ni euh, yàlla suñu borom dëgmal ko jàppandi na ndax boo jugee jëm ci moom dalay gàttandu waaye ku am fulla la loo geesu mu balaak loola waaw kon loolu nga wax dafay dëppoo ak wax bu am solo boobu nga xamante ni euh, sa wajur bu baax boobu nekk Touba euh, waxoon na ko ci wàllu euh, engagement wu état yi yaakaar naa li ci ëppoon solo def nañ ko li may ñaax service yi di leen ko fàttali mooy appel bi dikk na ba noppi te damay rappeler aussi te loolu instruction permanente son excellence monsieur le président de la république Macky Sall la nit bu fekkente ni da ngay yëkkati dara dem di ko yóbbul wala nga koy jàppale wala ngeen ciy liggéey da nga koy teel def mais du ñu bàyyi ba gan yi ñëw ñuy liggéey ci seen kaw wala ñuy mu doon jàppale boo xamante ni daanaka euh, njariñ li mënoon naa gën a teel wala njariñ li mënoon naa gën bar kon li may wax service su état bi euh, di leen ko fàttali. di leen ci soññ te ñu bëri wax nañ ko fii ci ñi jël kaddu mooy laata samedi laata samedi il faut que engagement yi ñu respecté ko ba bu ñuy jàllee ci dimanche jëm lundi daanaka gan yi euh, dañuy far benn yoon nekk ci béréb yi nga xamante ni yëpp ziar ba dafay am léegi bi ñuy jug di julli ji euh, Chérif Mamadou Lamine mi ngi may wax ni am na ñoo xam ne sax ñëw nañ dafa mel ni tey kon gan yi tambali nañ liggéey loolu nag li muy appelé ci service état bi mooy teel a def li ñu war a def ba noppi euh, ñiy yor wàllu sécurité bi wala warul teewaay ci yeneen domaine ñu dem fa mais liggéey yi nga xam ni dafa aaju ñu def ko avant gan yi ñëw kooku mat naa def laata bi loolu mooy li nga xamante ni mooy euh, dernière consigne yi ma leen di jox di demander au gouverneur d'en assurer le suivi ku ci nekk yaa nu gën a sawar sax lii rafet ñun noonu lañ leen di xoole parce que mi ngi bëgg a yàgg te ku ni yokk woo da ngay wax lu la neex sëriñ bi wax naa fii defe naa ni ci CRD bi fële boo seqee kilifa ay ati at ngeen di jëf dinga xam ku ne loo def ak nangam loo def ak fooyam ak ku def ak ku def te ne nañ ci jamono joo xamante ne ku moytuwul julli lañ doon def léegi yàlla lañ ko doon defal mais di nga tourner summi sa manto ragal nit te doo defal yàlla mooy nit boo xëyee di def muy def muy def te ngay gis ci li mu doon def mu yokkute ki deful naan laan bul wax ni def na seetal sa bopp yow soo ko sànq hadiisul qudsi wax naa ko defe naa ni Daawuda def na ko ci lancement bi et c'est important parce que tim nag loolu dafa nekk samay loxo ay ati at ñu seq kilifa muy gën a yokk suñuy nangam su ma tëddoon ci bàmmeel ñu laaj ma ko kon moom bu taxawee am nañu fit ni diw moo fi def lii la communauté laayeen ci li ma xam bi ma yoree loolu ba léegi buñ ma doon defloo loo bilan ci ku fi mas a jaar ku fi mas a jaar def nga lu baax mais li Macky Sall la def ci communauté laayeen ba fi ñu toll nii wallaahi wa taalaay ni dem ko c'est la vérité donc. loolu ci lay tàmbalee di ko wax ñii xam nga li ngay wax nii fii bari ñi dugg na feneen dugg na feneen dugg na feneen dugg na kon bu àndee kilifa ngeen di def fama bi ni'mati rabbika fa hadis la alquran wax dañ bi wax naka sànq ku mënul nangam gëm nooy gëm yàlla parce que yàlla kenn gisu ko ku gis yàlla lu mu reere ak lu mu sol mais ci nit ñi lay feeñ kon loolu lay jëkk tàmbalee di le nuyu comme ni mu ko ni ko sëriñ bi waxee nuyu nag commandement bi defe naa ne yaa ngi monsieur le gouverneur ak équipe bam bi mu àndal bépp nag macha allah bépp nuyu ñi nga xamante ni vraiment nos forces de sécurité profité ci pour les saluer et en même temps vraiment remercier leen ci seen taxawaay bu am solo rawatina nag ci contexte bi nga xamante ni nag ñu ngi koy dunde kon yàlla day Moy yore nangam waaye da koy jaarale ci ay nit kon yéen tim ngi di gërëm di leen sant lu ci sunu bis bi rek déedéet bis bi lenn la ci Sénégal li am solo mooy réew mépp ci kaaraangeem ñun bu nu kaaroo te seer bi du dem ne yàlla na kaar réew gi ci réew mépp ñëpp am jam. kon ñu ngi di gërëm bu baax suñu commune d' arrondissement yi commencé nag par la ville de Dakar ñoom itam ñu leen di gërëm di leen sant ñoom it macha allah certes ñi ci ëpp si ñoom ay communes ndaw lañu ci gis-gis mais nag itam mu gudd mu gàtt am nañu ay taxawaay ñu ngi koy jéem kon loolu lépp itam ñu ngi leen ci gërëm gërëm it suñuy taskati xabaar wax ngeen ko sànq macha allah accompagner nañu na mu gën a rafetee mais terminer ci comité d'organisation bi dama bëgg a wax nii dafa am cette communauté. groupement central bu faites compter administration l'administration ci ñun administration communauté 1952 lolu du ñetti fan et également la fédération des daïra ñoo constitué le comité d'organisation donc nous confiance bi nous, am ci ci bu <laughs> Eh, ku nekk ngi ci biir te lépp set na kon sëriñ bi ñii ñoo gën a mat a ñaanal bu baax a baax baax nit ku war a mën na bàyyi njabootam ay ñetti fan nangam la nekk ci say service ak service loolu te yow boobu yaa nga nangam kooku ku taxaw ak ñoom di nga leen di jërë ngeen jëf eh, bi ci des sëriñ wax na ko sànq monsieur le ministre jàmm xam nga li gën a dangereux actuellement jàmm dañ koy xewal ñun te yàlla mooy asalaamul muuminul muhaymin ñun nag jàmm ay période la bu jeexee nangam it booy seet itam jàmm ji pour benn catégorie de personnes la ndax Sénégal nous sommes 17 millions de Sénégalais ndax fukki nit rek ñoo war a am jàmm ci ay période bu jeexee ñu ñëwaat ñeneen ama jàmm non jàmm day nekk jàmmi Sénégalais yi c'est ça la vérité et jàmm dañ koy gàtt donc kon

ñoom ñëpp ñi bëgg ñëpp bëgg moo leen boole gis nga ci bëgg la nit ñi ñi bëgg lii ñi bëgg lii mais il faut que bëgg nekk kon nit ñi ñooy mën a àndandoo bëgg jàmm taxawal jàmm ñaan jàmm yàlla da buur boo xamee ne buur bu maandu la ya yàlla du ku ñuy du ku ñuy xaar yàlla yaa koy fekk toujours ko yàlla ku ñuy xaar déedéet yàlla ku ku mu nuyu si da yóbbu yàlla koo déggee ñu ne yàllaa fa des yàlla ku mu ziyaar si yóbbu la malakal mawti la mais yàlla nag yow yaay gat yaay jóg daw wuti ka mu gàttandu kooko yàlla donc kon loolu mooy ni nga xamante ni moo fi man gis nga waxtu wu ñu nangoon te cër yi te muy yàlla rek ñëpp a noppale daañu nekk daañu sut kon ñuy sant di gërëm bu baax a baax nag tous ces cadres sénégalais là yi fi nekk toog di ay doomu Sénégal nag ci fànn yëpp bi ci des fi may tëjee réew mi laa ni Séné réewu Sénégal yi la jullit ñeeg jàngu beeg ñépp ay doomu Sénégal donc ku ci ne lala la diine jox doxalal sa diine kee doxal ko bu ñu ñëwee ci pénc mi nag pénc mépp citoyenneté dox fa ñu war a mën a téye suñu réew ku ne la yàlla man loo nga def ko li bon jéem a def loo man ko defee yàlla nu yàlla defal loolu ñu yeesal nag monsieur le ministre ci sant jëme ci yow bu baax a baax a baax nag